ma ngi koy nuyu di ziar diko ko ñaanal faal mu yagg fi lo te ànd ak fa tabarakallah di nuyu seex jid Abdou Fatah mi nga xamne momu moomu ma maa ngi koy nuyu di ziar diko ko ñaanal mbàkke mu yagg fi lo te ànd ak wér ndax xam nga yaaram teru seex dafa leg kon nit ku bu ko bu la xole ba nga doy ko bam mu defal lako rek bo bo jëloon aduna la si biiram defal ko rek fay ko ko fa tabarakallah maa ngi koy ñaanal mu yagg fi lol mbacke te ànd ak di ñaanal njabootu seigne fallu yeb seigne abou maa ngi koy ñaanal yan bi nga xam ne yenu na ko yàlla ayofal ko ko ba naat yi nga xam ne yéene na ko liggéeyal maamam sëñ Fallu yàlla dimbali ko kattanal ko ko ba mu àggali ko kenn bañ ko ko àggalil ci daraja sëñ Fallu Mbàkke dinaa sëñ Muntaxa Basiru maa ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax ta Muntaxa fa tabarakallaahu ku ne xam na ne jamono ji ñu toll moo fi nekk sëñ Tuubaa Cheikhul Khadim di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi moom it ba yéene ak naat yi nga xam ne amal na ko maamam sëñ Tuubaa yàlla kattanal ko wéral ko ba mu àggali ko ba kenn bañ ko ko àggalil nag ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaw di sant nag sëñ Massamba Fall borom ngàcci Fall bu maam Cheikh ma Fall kooku fa tabarakallahu mooma taal maa ngi koy ñaanal yàlla ndax xam nga doomu adama boo dul sant nit doo sant yàlla ndax sëñ Massamba Fall borom ngàcci Fall ku ne xam na du bind waaye moom daf maa bind na ma am bii da ngay takk bii da naan bii da ngay sangu <laughs> maa ngi koy ñaanal Fall mu yàgg fi loo taan dégg wel fa tabarakallahu di ñaan yàlla waxtaan wi ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne ruus na ci waxtaan bi rek yàlla doon luy jëriñ askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah sang bi gannaaw bi laaj bu njëkk bi ñu jëm ci lii nga xam ne sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall defal nañu ko. Mhm. mu di ab tawfeex. Mhm. ci fan yi. Mhm. Euh, mën nga ñëw ci la. fa tabarakallaahu maa ngi sant sama borom bu baax a baax a baax ci bëgg gi ma bëggloo maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ku ne xam na ne maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg ci la rawee jaam ñëpp bëgg bëgg sëñ ci la ci la rawee mais sent naa ko moom ci bëgg gi nga xam ne am naa ko ci moom ba aw ma si sago Cheikh Ibra bëgg gi ma ko bëgg bëggeewu ma ko mindeef ci kaw suuf Cheikh Ibra Fall sax laa gën a bëgg ci yàlla mi ma sàkk fa tabarakallaahu waaw waaw ndax Cheikh Ibra lu ma ne mu ne ca lu ma ne mu ne ca man Baye Fall laa alalu maam Cheikh Ibrahima Fall laa ndax ragal pecc dafay xam ne wërsëg fa tabarakallaahu waa kër sëñ Fallou yi ñoo ma seexal jox ma turu seex te waa kër sëñ ku ne xam na ku ñu seexal rek mat nga seex macha allah waaye lépp lu ma am ak lu ma xam Sèye la Fall moom ko defal jànguma te maa ngi jàngale. binduma te maa ngi bindalee. day wax baax a baax a baax a baax a baax a baax suñu borom moom ma defal tawféex googu man lu ma am jagle la ku ma sa aajo faju ku dugg sama kër gi sa aajo faju borom xam-xam yi fii ñëw di gëstu sax dañuy yóbbu lu ëpp ñoom lañ yoroon fa tabarakallaahu jagle ngoo mooy nit fees del jàng ba dof mu ñëw nga wan ko lu masul xam ci àddina ci alquran loolu séer ba defal na ma ko loo jàng-jàng bu ma wéeteeg yow nga xam ne séer nga am na lu ma defal waaw te loolu newut ci téere yi de ku weddi del nga ñëw toog ma wan la taanu maam Cheikh Ibrahima Fall lu ma lu ma xam sible la sible moomu sol koo ñaanal sa aajo faju ci darajay maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg gi ma bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall nag moom ma may lépp lu ma man Cheikh Assane Fall ndax bëgg googu moom ma booyeeg Cheikh Jili Abdou Fata ba mu seexal ma ndax dafa def benn bés tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall ma xool kàtt ba ne i Cheikh Ibrahima Fall bés bii dama ciy dem keroog ba ma fa demee la ko baax ki xool ma ma ne ko jàkk mu ne ma jàkk ku la ma bëgg mel na ko ma xam téeméer at bés boobu la ma seexal jox ma gratu cheikh ci darajay kan maam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu ko tuddeewutoon bés ba du ma ca dem ba may xool ba di ma gis ba di ma bëgg ba di ma seexal kon loolu lépp dama koy sante maam Cheikh Ibrahima am na loo xam ne kenn da ko wax waaye des koy wax ngir jaam ñi xam ndax ku jóg def télé média ñi ne tappale yi dóorkat yi man du bokk ma ci ñooñ dama ne woon dama ciy waxati sax waaye day am loo xam ne bu la ko sëriñ bi dafay may tawfiix jaam ñi nañ ko xam ku ñëw baax na ku ñëwul baax na ku am ñëwal ku amul ñëwal loolu ku koy wax woowo kenn waaye damaa bëgg ñu xam Baye Fall mooy kan Baye Fall mooy lan kuy riche wala kuy noble Baye Fall moo la gën a riche moo la gën a noble man am naa ko te du ma faramason dafa ma lenn lu naqari suñ borom pa am lu ma liggéey jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla passeef taalibe ndigal addiya moo ma def li ma doon li nit di am na ci jiito loolu passeef taalibe addiya ak Baay Faal loolu ma def li ma doon boo xoolee ñu gën a siiw jamono ji ci wàllu lu mu mën a doon ay Baay Faal lañu <laughs> kon Baay ñoo yor yëf yi fa tabarakallaahu ñoo yor yoonu murit bokk fa tabarakallaahu Baay Faal yi waaw Baye Fall yi ñooy bañkat yi ñooy ñafekat yi ñooy liggéeykat yi ñooy jàmbaar wi Baye Fall kenn du Baye Fall dafa am koo fa xam ne daf fee ñëw ma dimbale ko ngir jëmmi Serigne Touba seexul Khadim ci daraja Cheikh Ibra Fall na ko yow du mën a laaj dara dinaa jàppale ngir Serigne Touba ma teral ko mu dem am soxna soo xam ne dafa nekk ba bitim réew gis na Serigne Touba ak Cheikh rafal yebal nañ ay malaka ñu ne cipp sama kër gi jox ma li ñuma jox ne ko nit ñi déglu pour xam li lan la kuy gam-gam lo sama mbir rek déglu audio bi te billahi bakki mam Cheikh Ibrahima Fall ak yalla bu ma Cheikh rafal ram ko yamul qiyam soxna ci suñ yi masul teggi bët moo déglu audio bi suñ borom wan ko lim koy won ci man mu wo ma telephone is bi wax ma genti gi ku Cheikh Ibra Fall ak Sëriñ Tuubaa jebal ay malaaka ñu ne cëpp sa kër war nañoo xool yow yaay kan war nañ ne moytu say mbir Cheikh Ibra Fall wane na ma ne oto yi may dawal Cheikh Ibra la carte gab la soxna yi rafet yi macha allah Cheikh Ibra la yi Cheikh la fu ñu bëgg dem ci réew man bëgg maa dem fen Amérique Italie amul fenn foo xam ne namm naa fa ndax li ma Cheikh Ibra kon dama koy sant bu baax waaye nañu déglu audio bii dinañ xam kan mooy Cheikh Assane Fall fa tabarakallahu sang bi ñu dem ci li nga xam ni suñu euh, daf ko dimal taw mm-hmm. fi ñëw mm-hmm. am na saafara kooku mm-hmm. waaw fa tabarakallahu mooy barke rek sëñ Xaadim yàlla li ngay liggéey bu ci defee barke boo tànkee ndox kese dox nañ ne buñ ko naanee wér am na ci ñoo xam ne dañuy wér wér goo xam ne man damay jaaxal ndax am na benn malade boo xam ne dafay ñëw yàggul ba mu ñëwee sëñ Xaadim ma xool ko xool takkandeeram gisu ma ne eh kii sa ki jeex na ma yëg ko sama xol mais ñemu ma ko wax ñi yaakaar ma ci ne ma yow lañ ci yaakaar gannaaw yàlla fu ne lañ ko jógee kii daal sëñ bi waajaa ngi nekk si lal di yuuxu xulli bët yi paru bët bi dem ma ne waaw kii bu ma ko joxee léegi garab bu ko naanee docteur yi ne sa waay moo ko mun jaa jox garab kii daal xaare rek ma bind ay alxuraan ndax kii moom saye ndax léeg-léeg malade toll foo xam ne nga jox ko garab olof mu naan ko faatu ñu ne docteur yi euh, euh, euh, médecin traditionnel yow ko rey waaye ba ma xoolee waa ji ñàkk moom yaakaar damaa dem ne ah comme yaakaar geen ma si rek gis naa ko Sèye Fall ma toon noon rek ne leen kii mën geen ci yaakaar waaye gis naa ko Sèye Fall dem am lu ma bind def ko ci biteel ne leen kii dara jëye Sèye Fall bu ko naanee dafay wér ñu ay waay Fall jàpp ci kii sëñ moom rek ñu yaakaar waa ji xool naa ko ba soxna seeg sama waa kër yi ñëpp xam nañ ne kii saye léegi nag ma jox leen saafe ñee te ñu ko bàyyi mu noppalu fii may leen jéeg mu mën a sama xel kii ma ko bàyyi mu dee fii sama kër gi ñee kër sëñ bi la dee te fii kenn ma su fee wàcc liggéey <laughs> sëñ Xaadim may leen fii moom sama biir xel may leen déedéet yóbbu leen ko rek ndax fii kii kii la ma koy jox bu génnee jël ko rek day am taw feex na dem mën naa dem ma waxee leen ko noonu ngir ngir comme jox naa leen garab bañ am ci yaakaar may naa leen dàqe noonu dañuy dem ndax yaakaar naa ba ñu àgg ba ma àgg sax mu wàcc liggéey ma waa ji waa ji àgg ma toog trente mille ñu woo ma na ma yow sa malade bii wér na peng mi ngi nii doxi soxlaam damaa dugg si biir toog jàkkaarloog fa te Cheikh Ibrahima Fall ma ne ko billaay Fall kenn du yow damaa tiit bañ ma ko waxee bañ ma waxee damaa defee nañ ne wàcc ne noppalu ne de loolu laa foogoon lañ may wax ñu ne ma kar nangu maa jël ma jël mu ne ma ah waaw sa waa ji de moom tey ne mi ngi nee sax di dox damaa sant sama borom ba maay detaal yi nga xam ne kenn du maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax yëf yi am loo xam ne barke barke la suñ doom mooy barke ci li ngay def rek ci képp kuy dund rek am nga ko ndax ku ko amul da ngay jabet te képp koo xam ne amoo ko da ngay ngaana que ndoxu siti moom mën ta ñàkk ci yaram doomu aadama waaye bu ëppee rek dalay indil ay jafe-jafe ci wàllu sëy wala sëy boo am am jafe-jafe léegi sëñ Xaadim da ngay jeex seeram di ñuul ngay ñuul kuk ba nit ñi defe ne yow mii da ngaa amul leer te fekkee da ngaa ndoxu siti bi mel moo la jàpp mel ne asib yàq yaram bi fa tabarakallaahu ba kenn du xam ni ngay nuur ngay gaaw a jot sa bopp ci wàllu ay sëy wala ngay am ay jafe-jafe yaram bi jeex médecin yi xool def analyse def lu ne gisuñu daal te fekk ndoxu siti mooy def loolu. mën la yóbbee hémorroïde sax. képp ku amee ndoxu si rek danga ngaa amee ndoxu siti mënoo am hémorroïde te amoo ndoxu siti fa tabarakallahu ndax tàngoor woowu di nekk ci sa nga toogaale ko mu tàngoor mooy dem ba jur lu mel ni hémorroïde interne wala hémorroïde externe fa tabarakallahu moo tax siti moom képp koo xam am ngoko ko rek da nga boo moytuwul di nga amee diabète boo moytuwul di nga am hémorroïde fa tabarakallah te li gën a doy waar mooy boo ko amee fajoo ko da ngay néew kàttan ci wàllu sëy fa tabarakallah moo tax ñi nga xam ne dañoo amee ndoxu si am soxna seen soxna duñu sawat ci ñoom fa tabarakallah waa jabeet mhm. nag dafa am léegi ñaari mbir yu si xew bëgguma ko woon wax waaye dinaa ko wax est-ce xam nga ne feebu léegi feebaru léegi yi nit guddi yi ñoo koy def eh. waaw ba loo xam ne soo demee ba mënoo ko wax rek na nga noppi waaye ñun Seydou Fall lañu yaakaar am na loo xam ne duñ ko ragal a wax damaa mas a dem Kaolack benn waaye takkal lemam loxom moo tax billaay nuyoo yu bëri yii waxam ba bu kenn def de ndax koo jox loxo joxoo ko loxo mu ne defe ne sa la waa ji dafa takkal loxo bi lem benn wax baax ma bëgg nga déglu baax li mu lay wax lem li ma ko jàpp loxo ma nuyu ko rek gaanu ko jox ma suyoo bi rek raxasu ma ne ko bàyyi li ngay def waay bàyyi li nga def waay bàyyi li nga def waay mm. sëñ bi bàyyi li nga def waay mu mm. ne maa ngi koy tuub man ne ko kon xam nga li nga def yow mënoo maa jox suukar ma ko mënoo maa jox suukar sa loxo bi nga takkal lem bëgg maa jox jabet mënoo ko fa tabarakallaahu waa ji sëñ bi maa ngi jégglu man ne ko lem dem nuyu raxas sama loxo bi kii dafa dof mm. <laughs> ñun alal seera faal lañ kenn duñu profité am yoo xam ne bu ñu la nuyoo nga jabet buñ la nuyoo nga jabet buñ toogee fenn jóg nga toog fa émoli wër ci àddina bi yëpp tuddoo wér moo tax day am feebar yoo xam ne fa tabarakallaahu faaw nga am xam-xam pour mën koo xam moo tax nit ki mënut mënoo koo ñaanal te seetaloo ko ba xam li ko dal fa tabarakallaahu boo seetul sëñ xaadim ba xam nit moo ko dal ko faj xamoo ndax dañ ko koo def xamoo ndax dañ ko koo wàll xamoo ban xeetu feebar la moo tax bala ngaa wax da ngay jàng affaire sëriñ na nga xam ni ñuy seetee ba xam lan moo dal doomu aadama bi li nga wax ni pont la diggante li nga xam ni moo di Euh, diagnostic maanaam saytu bi nga xam ni moo dal nit ci wàllu jabet am naa benn frère boo xam ne xam nga la jege doo ko gëm. sa waay ga fu ne la dem fa tabarakallaahu di faju affaire dem nañ sax ba wal ba yuuxoo ko ba ma ko fekkee koroog fa mu tëdd dama ne kii say waaye ma xool ko ak ndeysaan deretu doomu nday ak cofeel gi yërmande gi may leen dem leen nga jëndal ma reenu Dakar du ma ko tudd ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam bañ ko ko toggalee sa waaye ba mu ko naanee dafa mel ni ko judd waat bees fa tabarakallaahu am yaram yaram bi rafet boo ko gisee da ngay def ni kii day naan ay comprimé sangir ak yaram fa tabarakallaahu te ba tey mi ngi fi moom a gën a wér gën laa wér fa tabarakallaahu moo tax am na loo xam ne suñ xaadim jagle la bokkul ak lii yi di jàng ay boo jëlee reenu nangam sangam reenu dëmb ak dànk boo ko baxalee boo ko naanee day wàcce jabet yooyu yëpp ay caaxaan la am na yoo xam ne dañ koy jàng waaye dafa am loo xam ne jagle ta jagle moom man jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagle la am jagle jagle am na ñoo xam ne dañoo jàng ba naan kaamil ba ñii ñu ànd di liggéey di di ànd ak sëñ Tuba Cheikh Khadim ba leen fa Cheikh Fall fekkee ca gannaaw la leen yóbbu jagle la jagle moo man loolu mais sëñ Assane mu mel ni yow am ñu xool par rapport ak Pape Cheikh Ibrahima Fall nga jokk ci moom dañu xool jamonoy maam Serap Fall lépp mu jëriñ jëriñ ñu mel ni daal ma ñaanal te te tudd ma daraja Serap Fall sax doo wér buñ ne Serigne Assane Fall lan la xam lan mooy fooram ngeen na de xam naa ne daal daraja Serigne Ibra daal yor na ko waaye du du du xam-xam du laay dara daraja Serigne Fall nag ci laay dumaa gaa ci laay taalee gaa ci laay ñaanalee gaa ci laay fayee gaa ci laay yóbbee gaa eh, fa tabarakallahu fële ne la waaye. fa tabarakallahu fa la ne la waay waay ya fa tabarakallahu dëgg la waaw dara jël faal ci laay taalee gaay ci laay defalee gaay ci laay ñaanalee gaay te képp ko ma bëgg a laal rek ci dara jël seen da nga fiy jógee dafaa tëdd benn bés yee sama soxna ma ne ko tey damaa gént gént gu doy waar soxna si billaay li may wax bu dee du dëgg yàlla bu ma fanaan bu dee li may naa fanaan bàq ya bàq maam Cheikh daan fa bu dee du ma yee ko ma ne ko man di dafa am koo xam ne dañ ne ma daf laa tooñ te bu ñëwul ci yow jéggalu la ci darajey maam Cheikh a Fall ci darajey Serigne Touba bu ko deful day faat tey te man kenn laa jot jotuma kenn man xuloo ma kenn aw ma ñëpp laa am séq ak jàmm soo si dem ah loolu da dee na waa te yow sa wax ragal naa ko man daal dangaa toog rek jékki-jékki rek yuuxu yi daal daw am ñu daw ñëw fii waaye su jëkka ji gaañu na nangam sàngam sàmbata njaay lan la dafa accident daf oto bi la duggoon oto bi daw ba mbëkk benn garab moom dong ci faatu ndax lan ndax jëkk rakk jëkkëram moo ko rakku rakku rakku rakku magu jëkkëram moo ko doon tooñ soxna si fekk dafa fayoon ñëw fa magu jëkkër ji di ko tooñ ne ko yow say Assane Fall laa may comme da ngaa fay tas doom yi dégg loolu dem na ko sama papa de mi ngi may sama yaay diw ñi gëm loolu waa ji dem di na dootu ko defati yaa dootu ko dootu ko talati alors Sëriñ Fall du caaxaan kenn du ko profité yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ak àjjana waaye man xam naa moom mi nekk ba sàq xam na ñu fi nekk xam nañ ñu fekkee xam nañu alalu Serigne Fall kenn ko laal ak yeneen yoo xam ne ëpp naa nettal yi waa ji di borom xam-xam ñu boole ma moom may gëstu ci moom xam-xam ñuy solante ay xam-xam ma boole kaak sama benn client ne kii ñaanal ko xaaral dem ci soxna si am na ma yóbbul ko dépense bi ma ñëw fekk waa ji di tëjoog ndaw si si biir néeg bi ma fogg fogg tëjjiwut ma fogg fogg tëjjiwut ma ne ko sëñ bi dama dajji bunt bi ma ne ko yow tooñ nga ma tooñ nga sëñ Touba wallaay ma nga maam Seydou Fall ma jooy barki sëñ Touba. mais ma dañ may tooñ duñ mo yalla yow kërëb kërëb bare ma ag postaay nga dee gars yi naan ma déet ki lakkar la ki sëñ bi eh ki ni kenn du leen laal dañ lay nangam déggalu ko may leen yeen ki fekk ma sama biir kër def lu di def lu bon sama biir kër may gëdd ko wax ak moom tooñ ma ba pare ngeen naan naa ko baal kon man jarul amatuma xam-xam may leen darajee Seebra Faal kii moo ma dara te kii dina xam ne tooñ na Seebra Faal waaye sa waay xool sukuraat na weeru yàlla bëgg dee man ta génn àddina dañ ko mu yab ci oto yóbbu ko seen dëkk fa la faatoo fa la wàccee liggéey te ba bu ma julli bu ma may ñaan moom laay moom laay njëkk ci ci ñaanal yàlla yéen ko jéggi ko xaaral àjjana moo tax day am yoo xam ne doy caaxaan suñu xaadim

maam Cheikh Ibrahima Fall moo leen nit indi mooy faj seeni aajo te Cheikh Ibrahima fu mu ne ñëpp ñëw fa te Cheikh Ibrahima ku ko wutal si mu faj seen aajo indi ma fi jàmm yi Cheikh Ibrahima moo leen indi loolu la ñu yëg ci man loolu la ñu gis ci man loolu la ñu xam ci man te képp koo xam ne ba nga xam ndax loolu dëgg loolu du dëgg defal volontaire nga civil ñëw kumpa loolu xool ndax am ne fi wala amu fi fii Cheikh Ibrahima moo fi ne nga ko bu baax a baax a baax mbooloo mi dañ fi nekk ëpp nañu presque lu ëpp ñeenti téeméeri nit par bés fii damay liggéeyee liggéey liggéey ba mujj gi dama ne sama yoon bi attantu ko loolu du ay tappale indiw ko di def ay pexe nit ñi di ñëw indiw ko di fay nit ñu lay waxal lu dëgg indiw ko di fay nit ñi lay téeméer lu dul dëgg andiw ko dëgg amoo indi ak am yëfi waaju baax man damaa am yëfi waaju baax fii bañ fi nga xam ne Cheikh Ibra daf na fi barke nit ñi dañ fi añee añi dàq seen kër yi di fi reeree reer yi dàq seen kër yi di fi ndékkee fa tabarakallaahu añ man bés sama kër bés set màggal Tuuba la bés man Cheikh Ibra Fall bés set laa koy sant ci jaami laa koy jaaree di ko di ko sante Baye Fall bu ma xëyee dinaa joxe lu ëpp ay dépense lu tolloog deux cent mille ay jaam yàlla yoo xam ne ñii seen borom kër dañoo génn addina ñii dañoo amul doole ñii dama koy def rek ngir daraje sey Ibra fal kene yi ñi naan ak boisson yi benn day par jour rek dina ëpp presque fa tabarakallah cinquante mille par bés lool lépp boko calculer ay millions yu bari la waye sant rek sey Ibra fal ci jàmm yàlla yi fa tabarakallah yàlla fa tabarakallah sey Ibra fal mom la yoon bobu la jël bu nit ñi wuti alal utal yàlla so amé yàlla am nga lépp man dama ut man dama wuti utal yàlla fa tabarakallah sang bi tax ku fi ñëw seet la am ubbeeku dégg nga dama ne la lu fi nit di sàkku da koy am force ci darajay maam Cheikh Ibrahima Fall. rabat jinne eh, tey laa lay wax nag xam nga moo tax suñ xadim xam nga lan na loo xam ne soo koy wax sax ni benn jigéen dafay mas a ñëw di say di yuuxu ne du dugg si biir kër gi ñu ne ko li tax doo fi dugg mu ne keemay seen mais jëm ñemewu ma ko muy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ji nga xam ne boo ne jàkk sama biir kër gi moom ngay seen mu ne ñemewul jëmmu joojee fii kër gi dañ ko aar fii du fi dugg mënu fee dugg jékki-jékki rek mu xaqataay ma ne ko lan la mu ne mi ngi ne ah, yor paak bi daw na nga xam ne kenn du Cheikh Ibra Fall xale bi xale bi dugg ñu ma ne ko yow lan loo loo doon yooxu mooy dafa am ko àndoon ak man tee paaka bi ne bu mu duggee fi mu ray ma ma bëgg a mu tee ma ne ma doo dugg ndax ma du ma bàyyi tam tam takk na ma ba nga xam ne du ma bàyyi léegi ñu tax mu téye bunt bi góor yàlla yëpp xëcc ko ngir dugg ko mu ne du dugg ndax jëmm ji mu jàkkaarloo gaa yi ñemewuñ ko ni Cheikh Ibra Fall ah léegi dax daaba gis ne ku ko fa indi wér ak ku mën a doon barki maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Xaadim sëñ Xaadim dafa am loo xam ne dama ne du du du jagle la ñaata yoon ay nit ñëw fi am rab dem ci ay sëriñ ñi leen di laaj un million ak ay cinq cent mille ñi ñu teggiloo seen i natt ñi ñu jaayloo seen i or te tey lañ gën a fees ay rab man ci benn fan laa koy faj ci yi maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Xaadim bu ma ne woon nga dee sax da ngay dee si darajay maam Cheikh Ibrahima Fall am naa am na am na am naa loolu ijaaba boobu ak may googu am naa ko ba xam ko waaye lépp dama koy delloowaat ci jaam ñi rek xam na xaw ma dara mënu ma dara lépp rek ci darajay maam Cheikh Ibrahima Fall la. sang bi. faal jëm ci wàllu li nga xam ne moo di euh, ubbeeku ci wàllu koom-koom da ngay koo xam ne am na lépp am na xam-xam am na euh, xarala am na lijaasa yi mu war a am yëpp waaye dafay tëju mu am lu la yàlla jagleel ci wàllu jaaroo. Mhm. nga xam ne nit ko jëfandikoo. Mhm. incha allah. tawfiq mhm. waaw fa tabarakallahu yàlla mooy maye fa tabarakallahu waaye yàlla ay mayam du jeex yàlla nag bu lay may du wàcc di la jox main à main non non <laughs> déedéet du la boole ay malaaka ñëw di la jox main à main dalay boole doomu aadama moo tax képp ku sa wërsëg nekk ci nit ala kulli xal yi foos koy jot fa tabarakallahu gars yi dañoo yàkkamti di dóor ñi yàkkamti di tappale ñi yàkkamti di triant waaye loo war a jot bala ngaa koy jot foosu da nga yàkkamti rek waaye loo war a jot kenn moo la ko xañ fa tabarakallahu waaye sëñ xaadim njàng taxut nit am yooyu diplôme taxut nit liggéey fees dell ki xam-xam taxut nit ñu wuy si la mbir yi ñu mbir suñu borom la ñaata doomu aadama ñoo jàng ba am ay maîtrise nekk fi di taxawaalu di jaayee journal ñaata nit ñoo fi am di taxawaalu boo seen loolu ñoo ëpp alal ci addina bi sax seen njàng may leen ko seen liggéey moo leen ko may fa tabarakallahu njàng moom baax na ngir xam ndax boo jàngee kam waaye daal liggéey daal moo gën a wër fa tabarakallaahu yàlla ñu ko yàlla defal ñu ñëpp jaaro bi nag fa tabarakallaahu sama maam moo ma ko wax naa ko ba tàyyi ay émission yu bëri laajee sëñ ay nangami ngelaw te day mel ne trente franc ci man bat ci Cheikh Ibra bu doon yow nga dof ah am yoo xam ne dix millions sax bu leen bu bu yooyu jël leen ko ñu dof man ay tànk nangami million laa lay wax ci ay seconde te dama koy sant Seydou Fall te tey lay gën a ñëw. mais alal jooju dem moo gën jëmm ji dem. lu dem dafa gën. waaye daal am naa ci sangat boo xam ne 21 jours képp ku ko laal fukki ñaar fukki fan ak benn kenn moo la tere am alal ci kàttanu yàlla. ala kulli xaal yi. man li may gis nii. sëñ bi xaw ma luy saabu di saf. sangu rek guddi ak bëccëg suba ak léeg-léeg nga gis ko fanaan ci wirdu ci kurus gi ba ba set yow nga xëy laal benn affaire rek mbooloo mi fees del moo tax billaay wirdu baax na ndax jaamu yàlla la sikkar baax na ndax jaamu yàlla la waaye su nga fekki xob ah am na solo de <laughs> fekkee yow dóoroo kenn tappale woo fu la jaaral fa tabarakallahu boo jaay ci ay agresseur sax ñoo xormal la daraje seef la faal <laughs> yëf yaa ngi noonu <laughs> waaw soxna yi mooy li may wax rek am naa ci ah, ah, téere boo xam ne ah, fa tabarakallahu maa ngi koy liggéeyee fa tabarakallahu ci <laughs> billaay xam-xam am na solo sëñ moo tax ku wax amul da amul xam-xam wala ko yàlla dala koo jagleelul nga xam nga ku yàlla mayul doo nangu mayu kenn da nga jàpp ne yow kii wala kii li ma am nii du yoon parce que yow amoo amoo xamoo mënoo ko am ku yor doo nangu ne kam na doo nangu ne am na doo nangu ne man na ku yàlla may na ku yàlla may di ko nangu mais ku yàlla mayul ku yàlla may amaana doo ko nangu fa tabarakallahu waaye lan moo gën a kawe noddu noddu ku bëgg jëkkër nodd nag laa lay ñaane nga am jëkkër si darajay maam Cheikh Ibrahima Fall est-ce ñu noddoo góor yàlla yi duñ laxasaay dem wuy ji suñu borom da gis jigéen ñi dem wuy ji bu noddee ah allahu akbar nodd da gis góor yàlla yi jóg dem wuy ji ñuy wuy jee nodd noonu boo ko takkee noonu lañ lay wuy see fa tabarakallaahu ci nodd rek laa ñaanalee soxna yi rek fa tabarakallaahu nga takk ko rek gars yi ñëwandoo fa tabarakallaahu fos loolu rek la fa tabarakallaahu te xanaa xamoo boo bëggee siiw lan moo gën a siiw nodd lan moo gën a kawe nodd boo bëggee kawe bëgg a siiw bëgg am bayre boo xam ne nit bu ko jéemee yàq sax dem bàq ya fa doon jëm sang waaw waaye dama ne la yàlla rek moo am kaaraange tey aar te kum aar ah nga aaru fa tabarakallaahu même mu ñëw mm-hmm. bayre nga wax nodd dara yëpp ko bayre boo bindee nodd nga am loo ko booleel nga ëwee ko dara damay bañ yaafu ci jël ko mais nodd rek nit bu ko defee lu mu koy def takk ko tan que ñu ngi nodd rek turam day dem ci addina bi yëpp dañ koy dégg fa tabarakallaahu loolu nag loolu nag laa yor moo tax bu ma noddee ñëpp ay ñëw fa tabarakallaahu ci darajey maam Cheikh Ibrahima Fall waaw waaw waaw kayaange képp koo xam ne. mais souvent dañuy gis ni euh, sëñ Assane du faral di ñaan lu jëm ci wàllum fawum sport lu tax muy làmb wala mu football souvent dañuy dégg naan loolu duma ci wax waaw xam nga man li ma ñor rek mooy lu jëriñ jaan jaam ñi te sport bi jëriñul jaam ñi làmb ji jëriñul jaam ñi ay benn nit lay jëriñ ak ñaari nit loo gisoo ñu nekk si làmb jëriñ ay millions dimbali nit ñi. demuñ jënd ay pousse-pousse jox lafe ñi ci mbedd yi mm. demuñ jënd ay saako ceeb jox ñi nga xam ne ñu ngi ci daara yi kon bu ma wax ay waxi sport bu ma wax ay waxi làmb lañ ci financé waaye déglu ma sëñ bi déglu ma rek lañ mm. ci bi ñu ko joxoon néew di doole yi ñëpp am ñaata nit ñoo fi nekk di xiif añuñ ah añuñ ñaata nit ñoo ñëw sama kër gi dama lañ dépense par bés am ñu jël ay millions di ko dugal ci ay caaxaan ah sportif yi da ngaa gis kenn ku leen kuñ dimbali mm. ah ay milliards la leen jox mais da ngaa gis kenn jël na def daara ji tabax naa daara ji pourtant na ñoo ñoom borom alal yooyu nekk si sport waroon nañoo tabax ay internat jël ji doom ñi xale yi nga xam ne amuñu baay jël ñi nga xam ne ay xale lañ bëgg def ay affaire ban ni jël leen formé leen waaye ñoom sen bopp ak seen alal donc kon bu mu wax loolu mm-hmm. man wax ma laaj ma rek lu jëriñ jàmm ñi rek ak ak sujet waaw li waaye am te amoo kaaraange ñàkk nga boo amee xam-xam amoo kaaraange da koy ñàkk boo amee ay milliards te amoo kaaraange da koy ñàkk boo doonee président te amoo kaaraange da koy ñàkk boo doonee imam imam yi loo doon te amoo kaaraange billaay da koy ñàkk fa tabarakallahu li yaay di ut ci àddina si kaaraange jiitu képp koo xam ne sëñ xaari maa ngi joxe xam-xam de képp koo xam ne dem nga ci armel armel nga ut cent onze dégu sump yu sax ci biir armel cent mille cent onze fa tabarakallahu 1111 déggu sump yu sax ci armel da nga wax bu baax a baax seen xaar yi bésitu càngaayi néew ñu nekk ci morgue yi dañ koy faral di am ñu may la ko nga boole ko ak 1111 déggu sump yooyu sax ci armel saabu bu ñu doon sangee néew bi nga jël ci saab bi am loo ci dagg tëmbal ci biir sangat bi nakk bu ñu nakkalee nakk bi pour saraxel ah, ah, aji faatu gi ku ku génn àddina gi nàkk boobu ñu koy nàkk dugub bi fexeel ba am ci rek tëmbal bi tëmbal bi sangat bi li lay baax na mooy boo ko laalee dëmm ba la laal jëful wax waxat waxatuma waxaguma sa kaaraange mais billaahi ku la laal jëful ba tegu ndara kam jëful laa nga maay yàbbi fa tabarakallaahu xanaa ku lay seex wala yàbbi <laughs> yàlla buñ la seex fa tabarakallaahu hmm? waaye dama ne képp koo xam ne sangoo nga ko juróom-ñaari fan képp ku la liggéey génn àddina boo amee ci desitu càngaay néew bi nag tibb ci nàkk bi <laughs> fa tabarakallaahu xam-xam am na sëñ xaadim tegtal <laughs> boo jëlee desitu càngaay néew bi dagg ko comme nii tibb ci nàkk du nàkk nàkk dëj bi dugal ci biir dagg ci saabu bi dugal ci biir puso biñ doon jël di ko ñawee càngaay bi nga jël dugal ci biir sëñ Xaadim maa ngi wax lu doy waar fa tabarakallah yemal foofu du ma fa yem ndax booy wax dara nan nga ko wax ah, nga leen lépp jël ko def ko cëw ji pël yi pël koy wax nga yóbbu ñu ëw ko fii boo toogee ku ñu toon sax day fatt wala mu wala mu def ay mbir ba daanu sëñ Xaadim ñaata yoon nit fekk na ma sama bërëb bii jóg demaat na cëm cëm cëm cëm cëm jóg dem ñaata yoon lay nit dugg rek commencé def yëfi dof xultu rek génn boo ànd ak Seera Fall kenn du la ñeme. mooy kaaraange gi mooy kaaraange gi. man nga am yooyu yëpp te doo aaru nga ànd ak ceeb bi rek ànd ak ceeb bi rek mooy kaaraange gi waaw te nekk si digal li rek seen xaadim képp képp képp ku ñëw ci ñun gisoo ci ñun ceeb la wàññeekul xamal ne boo fi joxee sa xaalis perte nga ndax ki ma am Seera Fall. ñun lu ñu yor jagleel la. mais Abdou avant dernière bu ma ko wax. xanaa xamoo bu fekkoon ni ñi ma ñaanal ñëpp tey dañuy ñëw wëlbatiku di ma teral kon tey multimilliardaire laa. waay ñaata homme politicien laa fi ñaanal tey jii ba doon ay ministre ñi ay maire président des maires maire maire te tey ji gisatuma leen lan la ma wàññi. ñaata nit ñoo doon xëccoo ay ay ay ay ay ay ay ay ay poste directeur tey nommé leen ko waaye billaay ma am fayda. am nañ ne koo xam ne yàlla da koo ommataat nattuwaat ko indi ko ba fii daf doon xëccoo dara jotu ko amaane boo ma tegee kaset bi bu ko dégloo dina xam moom lay waxal mu bo wàññeeku ne la delluwaat bi dim a kaay toog kaay toog fii li ngay xëccoo ñu jox la ko ci darajey maam ne man daal sëñ bi daal lii jotuma ko maa ngi dem ma ne ko hee billaay mi ngi ñëw mu ñëw ma foog ne danaan jotag mu jot naa ci ma ne ko jërëjëfee maam Cheikh Ibrahima Fall ma li ma njëkk a fayee ko yow laa koy jox te di nga xam ne teral nga ma bu soobu yàlla dinaa teral ba nga xam ko sa waay gisaatuma ko gisaatuma ko gisaatuma ko dee moo njaay mu ñëw naan ma waaw léegi dañoo bëgg a toxu suñu affaire bi léegi affaire bi dañ koy toxal léegi affaire xëccoo bi gars ma fay a xeex ma ne ko yow da buñ la xeexutoon rek ma xam ne aw ma ci maam Serigne Fall ma ne ko xeex nga wax waaye boo amul sens da nga fay jógee ma ne ko boo ma joxul téeméer junni du ma la defal dara parce que ñëw nga ma dimbali la ci daraje Serigne Fall laaju ma la dara nga jot li ngay jot ñëwaat yàlla natt la nga soog a ñëw xam nga ngay di di di nga am problème ñaankat loolu ma sol nii ñi da ko def valise ñëw ko ba mu baax ñëw jébbal ma ay jas ne ay valeur presque un million quelque ak di fa liggéey. fa tabarakallahu. macha allah mais a a wuute. Ah, hmm. euh, dafa am information yoo xam ne dañu koy jot. ñun ñu nekk ci euh, média bi. Hmm. souvent daf ci bëri moo xam ni am nañu xam-xam. Hmm. waxuñu tur si jiwu ñu nekk ba bitim bi jël seen di leen arnaque. di ko nekk suñ leen woo di leen jël di leen faare si loolu sëñ bi yàlla mu ci yàlla musal ndax man. leer na ma ne bés dina ñëw ne simmi ma sang ma sang ma teg ma ci jaag yóbbu ma ci bàmmeel dugal ma fa ma wét fa man dong man laa fay fekk lu samay jëf un million ak huit cent mille yi ngay doon nit ñi xam nga lan lay doon ci yow ay kóoru Baay Faal yoo xam ne foofu lañ lay fekk di la mbugal te doo ci mën dara ne man gis naa koo xam ne nee na kii de lu ma lekkal du ma ko baal ba ilaa yombi diin waaw te dañ ne lu tolloog doomu tàndarma soo ko lekkale nit boo ko fayut kenn du du kenn bala ngaa du buñ la dugalee ci biir bàmmeel di nga rëcc loolu kon lan moom ma jaral man maa ngi ne amee million maa ngi sant yàlla te doonuma kenn laajuma kenn lu mu amul la may am moom laay kos kosal kos kosal ñett yi ma jël benn xaaj bi ñaar yi ma jox doomu aadama yi te maa ngi sant sama borom sëñ Xaadim léegi mën naa génn taxawaal ci dëkk bi fu mu neex ñëwaat kenn du ma poñe kenn du ma yuuxoo parce que lekk ma dóoru ma kenn léegi loolu mënul ñàkk waaye nit ki damaa defe ne bala ngaa jël sa alal di ko jox xool na la doy bu baax nga xoolal ko téeméer yoon ak juróom-ñaar fukki yoon mu soog laa doy nga soog ko jox sa alal waaye ñoom loolu ñuy def ñoom la concerné tey jii ñu koy def billaahi barke maam Cheikh Ibrahima Fall boo demee seen kër gi sotoo fa kenn te dañoo nekkoon star ba nga xam ne ñi leen ñi invité ay 100 pour cent mobile ak ñëpp di leen seetaan ci télé bi ñu xew ba juróomi nit yoo taxaw boo leen waxee ñu ne xam nañ leen tey boo demee seen kër kenn nekkatu fa parce que dañoo xam ne tappale kese moo fa nekkoon tappale moom ñetti fan la bés bi ngay taxaw di ko waaj ngir def ko bés bi nga ko defee ak bés bi la ci nit ñi xamee yal nañ ci yàlla musal ñun nag ñaan dañoo bëgg lii ñu liggéey nii bés buñ faatoo suñuy doom ak suñuy mbokk toog fi continuer loolu fukki at ak ñi nekk ci mosuñ cee dellu gannaaw heure bu ñu xëyee ñoo avancé macha allah kon loolu dañ koo dëggal ndax même lii ñuy liggéey nii bu ci xam-xam amoon pexe am ci sax day yàqu ndax yàlla du ànd ak kuy dafi pexe yàlla du ànd ak kuy arnaqué yàlla ku muy àndal mooy ku dëggal sang bi ñu bàyyi ne dañuy def affaire tour def xërëm dañoo dëggal sax suñu borom fekk lañ si comme li loo nekk na ko dëggal te nga bañ cee lal ay pexe asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant sëñ Xaadim Fall bu maam Seeraan Fall mooy sama buntu maa ngi koy sant di sant sëriñ Jil Abdou Fattah Fallilu sama sëriñ sama xarit sama lépp mooy sama sëñ Fall kooku damay wax ne li ma booleeg moom du luy nit di nangoo dégg sax soo ko expliqué nit ñi duñ mën a xajoo loolu waaye maa ngi koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool ba mu mën a jël ay addi ay milliards ah ay milliards di ko jox te barak barki maam Cheikh Ibrahima Fall dana am incha allahu rabbi te daal laa koy ñaanal di di di di di ñaanal fa tabarakallah sëñ Abdou sama baay bu sëñ ji bu sëñ Abdou Karim euh, bu bu Mbacke Baari fa tabarakallah bu sëñ Abdou Baara ah ma Sey Assane Fall mu ma bayam kudd du lakk mu ne ma Sey Assane ma ma bayam kudd man de euh, damaa xaw a jagat yi ñaanal ma mu du lakk waaye defe naa ne ah <laughs> sant nañ di sant ñëpp di gërëm sama xali sama sama sama sama xali xale yi ma nekk ci kër gi di gërëm sama soxna soxna Roqe Dramé même léegi-léegi damay génn nekk bitim réew génn nekk feneen moom day lijjanti gars yi man yàlla da bu fekkee seebre lu mu def ci man rek la ko def bu ma fi faatoo wala bu ma fi jógee kon xanaa nekkatu fi waaye da ko fee def ba même bu ma absenté ñi fiy nekk sax dañu leen ñuy doyloo ba li ñu jox gars yi aajo yi faju ci barke maam Sëriñ Fall jërëjëf wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk talibe yi mbokk internet bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp la maam Thierno Diaw talibe sëriñ Saliou engagement di géwal ci yoonu mut gépp waaye nag ñu ngi nuyu borom kër gi ñu fekk si tey muy Cheikh Assane Fall muy koo xamante ne nii nag day kenn ci Cheikh Ibra Fall bu nee daay bu nee nag day kenn ci Cheikh Fall xalifaam bi ñëw toog sëñ Xaadim Fall mii loolu day wane ne moom daa bokk ci Cheikh Ibra waaye it muy kenn ci Cheikh dal Fadal sëriñ Fallu ndax sëriñ Jëli Mbàkke Abdou Fatah mi ko seexal sëñ Fatah Mbàkke mooy bàyyam moo ko jur mooy waajuram waaye sëñ Fatah sëñ Fallu ko jur sëñ Fallu sëñ Tuubaa ko jur kon tey bu ñëwee muy def émission ñu fekke ko dinañ ci wax liñ ci xam Euh, bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal sëñ Muntaxa saa borom yokk ko xéewal maam yàggal ko fi lool tam wér di ñaan tam sëñ Cheikh Jëmb Fall saa borom yàggal ko fi lool tam wér lu mu naanal Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall mu matale lépp ba boole waa lañ si ñun yëpp ah ginnaaw bi loolu jaayee tam li nga wax rek sëñ Assane moom mooy la ma waxoon sama waxi jële rek moom laay moom laay dollu si waat rek. ah euh, maam Cheikh Ibrahima Fall dafa ni yàlla mi ko moom kat moo ne ko ne Bamba moo la moom sëñ Assane li muy wax ni Cheikh Ibra da dafa ni yàlla mi ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raase ko jox ko say baay man sama taalibe la sama wëlëre la sama lépp la waaye Cheikh Ra maam Cheikh Ibrahima Fall moo ma boole ak moom te maam Cheikh Ibrahima Fall ma booleeg moom ci weeru koor la ma booleeg moom. te weeru koor mooy Cheikh ra moom li mu wax noonu ci maanaam ci wàllu ndogu ak togg ak joxe garnde moom laay gën a leeralaat tey jii nii tuuti rek man maam Seraya Fall mi ma xamante ne maa ngi xam maa ngi maa ngi maa ngi lëkkaloog moom ci weeru koor te sëñ te maam Seraya moo doon weeru koor ndax maam Seraya Fall bi mu doonee weeru koor moo tax ñëpp di roy Baay Fall yi bay joxe ndogu di ko joxe ci leneen ak leneen ak leneen. loolu nag kenn ku mel ni kenn ku mel ni Cheikh ra moom moo amul ba toujours seekal bu ne Cheikh Ibra day am ku mu génne wane ko juróom fu téeméeri at yu ne dina am ñoo xam ne Cheikh Ibra moo leen di génne li sëñ bi wax ni Cheikh Ibra am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñëw ëllëg ñoo xam ne ku fi jariñu ku ne Cheikh Ibra moo lay jariñ te fii li ma leen waxoon rek képp koo xam ne ay aajoom narul faji waaye du fi ñëw fii koo gis mu di fi baagante ak mbooloo mi nga xam ne moom ngeen di gis nga xam ne ñu ngi commencé di commencé di huit heures ba vingt deux heures huit heures six huit heures ba vingt deux heures ñu ñaa ngi fi waaye ñi fi ñëw rek aaj faju moo tax ñu di fi ñëw bu fekkoon ne maanaam du ñu wér na a ah, kuy kuy kuy fajukat te woppkat maanaam fa ngay wéree ngay dem waaye ku baax nag ka nga xam ne boo demee si moom wér ca moom ngay dem loolu nag dafa am ci moom dafa moom yàlla da koo jagleel maanaam ci ci ci loolu loolu nag la ko la ko la yàlla suñ borom moo roofu ci moom jaarale ko ci biir maam Cheikh Ibrahima Fall mu mu di ko dox te di ko dunde di ko liggéeyee ñu gis ko di ko liggéeyee ñu gis ko ñu xam nañ ni kenn kenn du Cheikh Ibra moo tax ne ñun liggéey bi nga xam ne moom la koy def nii ma dañ ko ci gën a ñaanal yàlla di ko ñaanal ci darajey maam Cheikh Ibrahima Fall mu mucc ginnaaw bi mu muccee ba noppi tam mu wér ba noppi yorom di ñaan tam képp koo xam ne sama borom andi na la fii ci béréb bi nga wopp wala nga am leneen loo xam ne am nga ko si xeet bu mën doon bu nekk si wetu si xeetu loo xam ne muy feebar muy leneen ak leneen loo xam ne rek aajowoo nga ko boo fi ñëwee rek ñu ngi ñaan ci kattanu Maam Seraya Fall ci nu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mu wéral la loolu rek lañ ci doon lañ ci lañ doon lañ ci doon